dama jël lamba la waaw bu jeexee rek na waaw ma de na France waaw lan lay wuti France waaw dem rek lay ndaw rek xam nga rek rek ko laaj rek staff bi décidé ci bu a dem rek lay ndaw rek yàgg Balla Gaye noo ko gisee Balla Gaye ni ko gisee mooy mbër la athlète de champion la jox nañ ko cër jox nañ ko li mu moom xeebuñu ko benn yoon nag waaye fa mu féete woon ay magam foofu la ko booy bi féete fi mu féete woon ba booy ak Tyson ak Yekini fi mu leen féete woon gën leen a doon xale ñooñu lekk xaalis ba rekk mu ñëw imposé leen tar seen kaw wax leen lu ko neex bëreeg ñoom ci xale ak ci fulla ak fayda wan ni leen ni maa mën a dem maa war a dem foofu la booy bi toll lool foofu la booy ñaa toll ci moom. booy ñaa est-ce que dina jël responsabilité bu arbitre tëjee barrière yi. booy ñaa nit mënu koo tënee jël responsabilité ci combat bi du xam ne nag. Ah. day xëy rek ñëw maye ko de. Ah. comme li ñu wax ci signature bi nii mu ne ko dinaa la songu dinaa la lii may naa la temps arbitre du siffle rek mu gëm dem parce que loolu wanteer la te lii bis bu mag la te daan Balla Gaye moo dàq doon roi des arènes comme ni ko père Bourkhane waxee daan ko moo dàq doon roi des ndax am na coow am na am na bayre lamb am na popularité am na engouement te Sénégal la. kon da ngeen di teg baraada bi teg la dañuy teg baraada bi jël sunu temps. da ngeen di jël temps dinañ jël sunu temps dinañ bëre moom lu combat bi laaj ñu def ko. waaye ko bi dinañ ci jël responsabilité. dinañ xeex ak moom. dinañ bëre ak moom dinañ ko woon ak ndaw. ndax lu bu combat bi dëgëree lan la Boy Niang war a def bu combat bi dëgëree ya? waaw li Boy Niang war a def xam combat bi dëgër ñoom ñaar ñu bëri ko mu metti xotteeku mooy ah, ah. mu dëggal boppam taxaw ah. gëm boppam bañ a mayee dara toog si ay tànkam parce que Balla mbër la moo xam ni su jàppee jàpp bu yàgg day bëre su jàpp bi yeexee day bëre fu la laxasu day bëre day topp action léegi Balla li muy ñun xam nañ ko ñun bi ñuy ànd ak Boy du tey da tey yàgg na noo topp Balla Gaye 2 day léew toog yow méb bu la mébee indi gauche droite gauche droite bi gauche bi da koy appel ah. après mu indi laaw droite bi ah. bu la laawee day jël loxo bi gàllaale ko sa ginnaaw ah. cergandal ànd ak yow loolu lay bëre te bu jàppee du bàyyi ba waa stade bi wàccoon yëpp ñu ko téye du bàyyi boo ñag nag du ko may muy diriger du ko may muy jàpp du ko xaar du ko déglu buñ taxawee sax si benn bennel bi booy bi duma ko buñ jàppantee bu bëree booy bi bëree ci kawam barke seen a seestaan uh-huh. waaw du ko may dara ndax combat bi combat responsabilité la uh-huh. ak combat xale booy ñaa moo war a dem fi bal la tolloon rey ay magam dem fa booy bi toll te ku nekk da ngay dute si booy ñaa mën na dara ci poids lourd am déet combat bi lay leeree man làmbaloog maa la wax lii kay làmbaloog maa la wax lii ibba mu gaaw mu yéex lu bal la indi si uh-huh. kattanu yàlla ak mbaaxu seex na booy bi du ma ko daan ko du ko daan ko bi moo gën a bëgg làmb ji ci àdduna man dama daan toog chaque jour di wax ak moom mbër defal lii lii mais combat bi loolu sax dama koo wàññi du ne ko sax mbër defal lii ndax moo ñu gën a bëgg combat bi mm-hmm. te combat bi moom xam na li mu laaj jaru sax ñu ko ciy conseillé centimètre li tax ñu ñemee Balla dañoo gis ay faayam xam ni fay yor dafa bari Balla ah? bagaar bi bënnul ñeme na xeex nag am na fit gaynde la mais bagaar ba bënnul buy dóor day tëb soo ko dóoree day gëmm soo ko tuusee si làmb am nga ko day jaayu ñun xam na làmb ba pare li jóge ci moom dafa jóge dikkaat doos yi mu jël ak pikiir yi ak yi mu sëf si yaramam loolu dafaa jóge du fa dikkaat ba pare Balla 2005 2006 2007 bokkul ak Balla Gaye bii ah. parce que dernier combat ba Gris Bordeaux démontré na ko dafa jeex daa sonn lamb jooju giri moo nelaw topp kuu ak war kaa ërtal ërtalu ko may ko mu récupéré di kat mais ku xam Balla Gaye mu njëkk ak léegi xam ne il est fini bu fekkee 100 pour cent la woon léegi desewul 5 pour cent ah. man maa la wax li man Ibba Balla Gaye pare na ba pare ci diggante bi ñaata jeeg ñeenti jeeg lay sa jaar na fi bu ribaat yi di ñëw gambien bi ñëw leen a ñëw am na loo xam ne bu jugee ci yow du dellu si waat Balla Gaye moomuñu xanaa yàlla da koo ragal ñu bàyyi vie privée jàmbur non waaw mën naa bàyyi vie privée waaye damay leeral rek comme ni naa xasee grand yeeg paa yi ndax wax na fi baabooy boo ma songee ma juutal la jàpp sa nangam yi juutal la yi ki ne mu ne ko koppit ñëwee la ëpp ak cuuju fuuta wax na fi lu nekk Yaxya Joob wax na fi Mohamed Ndao Tyson lu ne ba ne ko nii te nee na idolam la tey bu Balla Gaye njëkkee seen kaw Balla Gaye bu njëkkee suñu kaw ñun pare nañ lépp Ibba Balla Gaye ñëw Balla Gaye taxaw Balla Gaye ñu dajeeg moom Boy Niang pare na lépp Boy Niang amul lum négliger si combat bi combat bu dem 100 minutes. Boy Niang pare na bu ñu yokkoon temps bi. mais bu fekk nekkee 100 minutes est bi du leen yuuxoo. yuuxu waaye dama lay won ne pare nañ rek moo tax man la 100 minutes. mais xam nga temps bi àggul foofu. bi lu si indi. si hmm. kattanu yàlla ak mbaaxu seex na. Ah. dina ko fi fekk ci bëre. ci xeex si rapidité si ah. ginnaaw ci bëgg bi te te le premier janvier Ibba. waaw mu la rombee dugal dugg ci stade bi. Ah. ba doxalee di xam ne ñii fawuñu ñoom dina xam ne seen xaalis bi ñuy jaay ak seen coow lu rëy léegi seen ngemb li ñuy yaakaar uh-huh. le premier buñ la rombee dongali billaay dinañ xam ni dinañ xam ni doomu dogal ji leen di moo xam ak fasam ñun li ñuy takk duñ ko ko woon duñ ko ko wax li ñuy takk li takk ñun duñ ko ko woon duñ ko ko wax ndax làmb ji làmbi secret la ak làmbi téye sa làmmiñ làmbi téye sa gémmiñ ndax ñoom dañoo am ay nervi fu ne fu nekk lañ dem ut fa seeni nit mhm. placé leen fa pour information bu fa rot ñu jël envoyé leen ko ñun sunu bopp mhm. li ñuy liggéey ak li boo ñaar di préparé ak li ñuy def mhm. ñun la concerné ñun ñoo ko xam ñun suñu biir kon daan Balla Gaye moo dàq doon roi ndax moom champion la ndaanaan la am na tour lamb bëgg na ko te ci kàttanu yàlla ak seex na ah. dinaa ko defaral bagage dinaa ko daan jël bu toll ne Paris jërëjëf Iba maa la wax lii man lamb